xam naa ne sax ñu ci ëpp ñu ngi waaj di ñëw waaye ñi fi teew ci góor ñi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di siyaare ci bis bi di bëgg lool ci lii nga xam ne àndandoo nañ ko ci liggéeyu sëñ ma leen di ñaanal di ñaanal mbooloo mi ci seen ginnaaw ci suba bi ma xëyee laata may génn ci pale bi la ma waa kër Seydina mu sëriñ sa sëy mu Cheikh Béthio indil ay ndékki ndékki yooyee nga xam ne sunu sang baa ko digle woon ci yoor yoor moom a jox ay ber ci suuf moom ak rafet taalibe loolu naa ko sant naa ci bu baax maa ngi koy gërëm di ko sant maa ngi jaajëfal kuréel bi mbooleem jëwriñ universel yi nga xam ne booba ba tey daanaka ci at ñuy waajal bis te ma xam ni yombul ci njiitul sëriñ Ousmane Fall Sarr ak jëwriñu màggal Babacar Diouf universel ci njiitul universel yëpp nga xam ni bu ma tuddee ñooñu rek tudd naa leen ñoom ñëpp équipe bi yëpp góor ak jigéen maa ngi lay jaajëfal di ko jaajëfal taalibe yëpp yi ci seen ginnaaw ndax yëf yi bu mel nii kat ñoom man demuma dikkuma toog laa def di joxe ay digal ñu koy jëfe te li ma leen digal yëpp jëfe ngeen màggal gi saa suy dëgmal ñu def yëfi nit mooy bu ñu koy dëgmal faaw nu tiit ndax kuy waajal màggalu sëriñ Béthio ndax màggal gi kat sëñ Béthio ko moom sëñ Saliou ko ni woon def naa sama màggal muy sag màggal ci foofu laa ko wéer moo tax ma ne leen màggal gi bosam loolu nag buñ la nee yaay waajal màggal boobu boo tiitul doo nit ndax moom day def na ci jaloore ba noppi def na ci man manoore bu ne def na mhm. ku ko tudd sa xel dem ci màggal li mu jëf ci màggal mel na ni lu fi waay def ci màggal rek ci moom moo maa ngi fàttali ko boolam yi yam daan yem di ko jëlee fii di ko yóbbu kër sëriñ bi def ak loxo màggal di yorooru màggal mu xat loolu ñu dëgmal ko jëm kër sëriñ saa bu ñu yeggee sëriñ bi xool ko bernde ci jim ciy bernde li ci des ñu jox ko jumaat warale ko ci jumaat ñu dem ba yàgg mu ne ko del togg di joxe def naa sama màggal muy sag màggal looloo indi dayoo bii ci màggal mu jaar ci daf ci lum ci lu ne dafa jàngal na nu ko def ba moo indi bu màggal gi jotee fu ne ñu dóor fa sunu waaye ci ndimbalu ak tawféex ndeem moom mbirum mbirum sëriñ bi te mbirum sëriñ tubaabam amul tànk ginnaaw saa su ne rek mu ñuy won ay ay kiraam di ñu defal ay tawféex yoo xam ne dafa ñuy wóor ni bu doon ak nunum nun rek mënaluñu ko suñu bopp moo tax sunu cant saa suñu yëkkatee kàddu mooy ñu ngi koy yeesal ci moom moom rek a yeeyoo cant bi ndax dimbalam ci ñun rëy na foo ko takk weesu ku ci jóg rek jël kàddu man ngaa wax ci moom loo xam li nga xam ni moom rek ko mën ba tax na maa ngi leen di wax sama mbég mbooloo mépp rek di leen sant ci nii mu ñu ko amale ren yokkute yi fes na ak cant day day day day day boppam bu gannaaw buñ ko waxee bu ñu la xoolee xool ci say jëf dañuy gis ak cant ci loolu nag mel na ni moom kenn ku ci ne gisal nga ko sa ci ci ci saayir ak ci baat ci saayir gis ngeen noonu yi ñu ko daan defee naqam nag yi tawféex ji ñu ci defal ndam yu yaatu yi sutura sag sancaan yi ren li ñu masoon a def ci ay sancaan ren lañu def lu ko ëpp foofu lépp loo xam ne digle woon na ko ci màggal mel na ni ren luñ ci defoon rek def nañ ci lu ko ëpp man sax li ma jot ci àddiya mel na ni mosuma koo jot ci magal waaw yi yéen a jox day mel ni màggal bu ne jaar na fi waaye at yi ma jot nag ren moom moom mosuma koo jot ah loolu nag ah, koy wet goo xool rek wet goo goo xool gis ci ay yokkute gis ci loo war a sant sëriñ ci bokk yi ci taalibe yi ci njaboot bi sama xale ngi dem ci suñu waajur yu jigéen yi soxna Mboose ak soxna Aïcha maa ngi leen di nuyu soxna yu tedd yooyu àndandoo yu tedd ko sunu waajur yu bokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant ci seen taxawaay ñoom ak njaboot bëgg naa lool di nuyu soppe yi am na ñoo xam ne ñu ngi jóge ba Dakar maa leen fi tax teew dinaa ci lim rek kenn koo xam ne bu ma ko limee danañ xam ni war naa koo lim muy Mbaye Diop Fary Mbaye doomu Age Mansour Mbaye fi mu ne def moom ay rakkam ñoom ñëpp ñu ngi fi toog ak ay xaritam ca suba lañ ma fekk ci ci kër gi ñëw ne ci sama wet ñu ñu am cofeel ñu ma yéeneen ndam waaw yéeneen ma ndam ba ma xam ne ñii moom dañ maa yéeneen ndam moo tax heure bi ma leen gisee sama xol lay set ndax seen yéene ci man mel na ni sax yéene bi sëriñ bi moom def na ko ci yëpp waaw man day wax dëgg yàlla sant rek a moom ndax xam naa ne cofeel rek la ñu ñëpp àddina bépp réew mépp rek boo gisee bi ñu dàqee nag yi gëlëm yi noonu ñu ma fure wooyee fure rek wooyee nañ di wax seen cofeel di wax mbëgg bu ñu bëgg ci gis yëf yi kat sëriñ baa ko loolu nag mooy taw foofu mooy taw foofu kon daal wax ji moom mu gudd mu gàtt defal na noonu loo xam sant ko rek amatul salo defal na ñu loo xam salo amatu mooy saa su bu ñu yemoo sëriñ ci ñun ay banal wax lool ndax mënta ñàkk buñ la ko defalee faaw la wax buñ la jël defal faaw la wax te nga nag jëf ji di moom fës na fës na lool ci noonu lay siyaare Sëriñ Muntaxa xalifatul alam di ñaan mu yàgg fi ci moo sell moo tàggat sunu sunu sax la ñun murid diine lislaam sax la ndax doxalin tedd nga boo ko xoolee ak mbégamam sëñ bi taxaw lay xool ci kanamam rek xam ne kii moom laa sagal yàlla dafa yàgg a liñ fi jàng ci liñ fi jàng ci alxuraan ak xasida ñu ngi ciy fas mu yàgg fi turéel ndax moom day bu fi yàggee bu fi yàggee rek xéwal fee ah waaw dolli ci xéwal yi ñu fee ah waaw bu bu bu dara naree xew sax bu bu bu ñaanee rek lépp lépp sax noonu laa koy hmm. sante sama sant bu tëdd bu rafet bii comme cher moom Serigne Sarr waaw moom day sant naa ko loo loo ci noonu nii mu noonu mu ànd ak ñun moom day xam naa xam naa ne sax nag moom ay yëfam ndax Serigne bi de nii mu ànd ak wér-gu-dum ko wér-gu-dum moo tax moo ànd ak moom ànd ak mu tumuraanke ku xam Serigne Cheikh ak doxalin ni mu ànd ak ñun da ngay xam ne lu mu mere yàlla fi yàgg tëwéer moom seen barab moom lépp sant nañ leen bu baax a a baax maa ngi bëgg lool waaw bëgg naa lool barab bi ñu ne ku ko xool xam ni ay yokkute rek ah yokkute yi waxtu yi daan fekk ñu ñaq lool waaye fi mu ne ay yokkute la maa ngi nuyu sama soxna su sedd sos soxna Mara. maa koy nuyu bu baax njaboot gi mu yor Serigne Touba daf ci ñoom barke moom day li ma tax ma gën koo fonk mooy njaboot gi ma yoroon kenn mënta xàmmee ku mu jur ak ku mu jur ah loolu nag moom tax na wax dëgg yàlla ma amel ko ci cant bu rëy ginnaaw cantal gu ma ko sant ci melokaanu boppam ci nu mu doxale sama bëggante ak moom xam ni borom këram laa waaye ab sëriñam sëriñ Tuubaa daf ñu bokk ni ñu bokk mu xamal loolu daal ak cant la cant bu wér boo xam ni moom it war naa koo fësal maa ngi sant journaliste yi ndax gis naa ni léegi moom waxtu wu ñu xewee la ñëppay ñëw loolu nag moom dégg naa ci am na ci xam ne sax indi léegi lu ci mel bu sedd ndox yi ko yónnee maa koy xarxar bu baax di sant ci teewaayu organe de yëpp. s'attaque ci sécurité bi la sécurité bi police sapeur pompier waa AFOR ah waaw waaw mel ni ren li ñuy jox ci ay ambulance médicalisée jox ñu ko ci loxo musuñu ko am waaw ren moom gis naa li ndox mi manqué fexe nañu ba ci wàllu ndox li ñu mét li mu méttee woon daaw wax dëgg yàlla ren wàññeeku na bu baax c'est le lieu de remercier le directeur général de l'OFOR ñëw na fi ak ay équipe bu guddi ak bëccëg lay sax bëgg mu am gas na ay tuyaux sax bu dugal leen ci ji moom it wax dëgg yàlla dañ koy sa ci yéene yooyu ñu amam maa ngi gërëm ñëpp di leen sant waaw waa Jokalante ma xool Cheikh Sène ak équipe boobu mooy ñu soog ci li ñu gis waaw leneen leneen leneen maa ngi leen di sant maa ngi sant ñëpp xam naa li tax tey moom dama bàyyi ba guddi li ci des mu mottali ko